إذا تتأتين قليلا في عظم من المذاب البكاء كل يوم وكل عرض لكربي يوم من هو كربلاء وأشوار كان رسول خليفة بابا بكر صديق رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كبير وبعد سيدنا عمر وبعد سيدنا عثمان gannaaw gàllin karamalaa wajo sang ba cinim saat ne fanweeri at lañu wutu gannaaw yonent Yàlla Muhammad dañoo seddo at ya sanataani li abi bagrin baqat ñaari at la am fekki rasuulallahi wa ubarun asharatun fukki at la toog fekki nabil mustafa le hotu at sang ba ci nim ne wa thaalithun seen ñetteelu xalifa yëpp mooy Seydina Usmaana santa ajara fukki at ak ñaar la toog fekk ci nabil mustawa bi di tëtin Seydina Aliyun ibn Abi Talib karramallahu wajhahu juróom benni at la am fekk Rasulullahi maawiya dalli ji tëjjaam ña mubtaqiyaan ridallaahi tëjjagul daan ana warul muluk gannaaw njol makka noon sama gannaaw ak fanweeri at ya ko saabaam ya ñoom ñeent wutu ne na diina ye de jaxasoog mulkana duda ne na kon duma amirul muminina duma xalifa ne na ana walul baada ashaabi nabi kaara moom ne kon yaabalu laa harab ba ويقتدي سنة نبي المتبع صلى الله عليه وسلم سمو النبي كان ينجل مكة يا مباي ونك جامي noon hajjatal waɗaay bàyyi na ma ak ñaari mbir yéen it ak yéen bu ngeen ko bàyyiwul du ngeen réer mooy alxuraan ak sunnaam gannaaw ga dénk na leen itrata te ñooña ñoo daaru bayti radiyallahu anhum ajmaina si naa maawiya بخلفاء يجيهم ير ذريتنا بالمصطفى صلى الله عليه وسلم نكك نيوم مدينة المنورة نكك نيوم سام دلين ترال مسنيو خيف با نيومر مسنيو أمك جاخل با نيو تمران كبا نيويت بلدان أتى دادا تيولينا وسينو بلدان سيدلي شرجن نوالب مغوا كر نبي ngir samoon ceeg ndinkaane yàlla ak yonent yàlla Muhammadu xam ni yàlla boobu moo bind jaam ñi lu mu bind rasul alaaya tax te njol ma kaari seen maam uma uma seen day ñoom ñaar mooy Faatima du bint Muhammad seen baay moo di alil murtada karaman laa wa joogay nekk gënoon bis bu njol ma ka soxla yow mal ci xal bu ñaari kuréel yi songo ko kaari seen baay kon kay maa wi ya wàcc na moom la dénkoon doomam ji siit mu génn addina mu daldi war mboolem dénkaar ya iñaan na xilaafa ga doomi rasulallah te moo ko yelloo seydi wa seynu doomi limaam ka des bakkaar الصلاة إن قليلا بعظيم من المصاب البكاء كل يوم وكل عرض لكربي منهم وكربلاء وشعراء سفيان كي واتنا على رضوان الله خالق العباد سمعتنا ka sallallahu alayhi wa sallam moom la saxoo di ñëw naan ko kuy doon xalifa du min yaa bu na ye ma ma la keroog la ko naan dénk naa la ngaaw siraatal mustaqim taxaw ci santaana yàlla ak yonent yàlla Muhammadu mboolem ñi mag def leen nay way jur ñi maas yeeg yow def leen ak maas ñi la féete def leen ay doom waray kabala di dénk naa la ngay war maal Seydina wa noog lu bokk ci waa kër yonent yàlla moom ma doog bànni asim ngir lu yàlla bindi file ko nu jëm seen bu ñu meree seen maam yonent mer na bu meree yàlla mer na bu ñu bégee seen maam yonent bég na te bu bégi yàlla bég na kon dénk naa la Seydina Useynu bala ngaa lekk mbaa nga naan na lekk ba naan bala ngaa nelaw na yandoor moog waa këram bala ngaa séddale benn cër jox ko wàlla moog waa këram bis bu soxlaa xilaafa gi jëm jox ko topp ci moom moo ko yeyoo aliyo di baayam te moo di xaatimul xulaba mm. fatima to ko jur bintu nabil mustafa sallallahu alayhi wa kon moo ko yeyoo mu nan baayam ba saman wa saatan dégg naa ko te moom laa jëfee baayam ba génna dina mu daldi war mboolem ndénkaan ya feeñal ak bañ ci waa kër yonti yàlla muhammad ne sallallahu alayhi wa dutu lekk seet leen du naan ba geesu leen du du dee da lépp cër ba jox wa sëynu mujj mboolem ku ñëw ci moom naan ko te nga battali ko wa sëynu mu génne la mbaa mu rey la mbaa mu yeewlu xata jaa al sëynu yow maay lappi dakkina radiyala wana mu ñëw bés te jigéenam ba naan ko moo te noo dellu makka mbaa madina jigéen ba naan ko bul génn raam dem te du ay firnde binda leetar jox ko yedit ñaan ko ndigal bala ngaa dem ngir seen ga keroog la daal di bind leetaram ba yéene yedit bun maawiya naan ko liyaa ni qad adimtu ala rahili dogu naa ci laxas dem ak samay àndandoo ila makka wil madina wali qaamadu bi ma ak sax fa waaye ba ma mayee ndigal ma dem boone jekkil ma toog keroog la dalli tontu kaddu mi ñaaw naan ko boo demee ci say na mel boo jekkee ji day na mel waaye dootu fi am teraanga ak bu di xilaafa gi maa ko yóob maa ko jël gi san baay ma keroog la konaan diggante ma jox la benn yóbbal te dootoo fi am mbég teraanga alu bayt rasulallah ña keroog la ñu bokk dajaloo Seydina Useynu jiite leen ñu gàddaaye saam jëm Madinatul Munawwara yëg di ba kër seen maam yonent Yàlla Muhammad asamaan jooy na leen ñoom suuf si jooy na leen nit jooy na bëccëgi kar الندم والبقاء آل بيت مصطفى نيو ديو كروك تمر واق ويتاي باق بوما دقلا رجل تخل نجاح نيو دولا تخل نجاح دلو يو غناو دوغل باق di te yàlla teg ko benn jaam lu may ñoom la ko teg ñu àttan ko àndandoog seen muñ ga albayti Muhammada seen wàcc ba Medina bàyyi ko sam waa Medina ko naan jekkil Medina mbaa nga jekki Makka foo ci dem sa dëkku maam la rasulallahi mu am fan ceemit ne siyaare yonent maamam naan leen maa ngi yàgg baytilal xaraam ngir dëkkoog néegub yàlla ba ngir di jaay mu yàlla borom ba yooyu saa abdoulaye bun subay roy burub jullit ca makka atalaw moom moo leen wàcce moo leen daloo seydina useynu waxtaan ak moom la dox diggam ak yesiid bi naa yang na mu bàyyi ndinkaani baayam ba ngir iñaan leen ñoom kër abdoulaye bun subayru naan ko am ngeen ab dal maay amirul muminin ci màkka tey waaye so bëggi ma wàcc te jox la nga ji te jaam yaay sa tub rasulallaayi sëy naa wu sëy naan ko loola taxul ma jóg fu ma mën di jaamoo yàlla tax ma ñëw su ma yaboo di rek benn bis maag sama njaboot xiit ñetti fan ba dogal bay ñëw ci nun li doy na man ko jombe nag loola diyam lu yàlla bind fileeg fu nu jëm seen maama sax xayrul anbiya wal mursalina kon loolu du am fa qaala la jazakallahu xayran doomi rasulallaahi ji ñaanal ko gërëm ko moog waa adul ijaat ña wa ma yejit bul ma wiya bewam gaa mbiram yaa gën di war cër yaa wi muslimin yaa baalu iraq ña bokk dajalu te naan moo te noo wut keneen ku yiite diine li ñaaw na ñemu daan moo gaayam ñu àndandoo la yàlla doon tere di ca nekk gaaña di ko jëfandikoo fàttaliku ñamal xiyaama fay tama daari na la tiimi gaa ñu bokk dajaloo ci seen kër ga ñu daan waxtaane ñoom ñëpp bokk diisoo naan moo kunu war te ko ci kanami jaam mi jile fi yetit ñaan xanaa sa tub rasulallahi te moo di alxuseynu kaw la gaaña daal bindi seen leetar ba yónnee mu jubal makke mu karaama ñan konaan ñëwal boo ñëwee nooy àndaandoog yow noo lay dooleel diine ngi ñaaw te sa dem na xulafaa raade doy na te yaa fi des ku yiite mbirum lislaam yaa ko ci gën a yey àll yooyu sa baay Fatima la jur te mooy doomi xayrul anbiyaa lettre bu ñëw mu jàng denc naan leen man tàkkuma xilaafa mbaab daro dayoo ak daraje ci àddina fu may jaab mooy yàlla tax ma jóg ñëw ba baytalal xaraam te doy na ma taxul gaañ a bàyyi seen leetar ya toftale ko mboolem jamono yu nekk seen leetar ya ñëw ba mujj leetar ba gaañ a naan sunu mujj leetar a ngi nii ba ñu dajaloo boo ñëwee boo ñëwul woo nanu la ngir nga jiite diine jaam ñëpp yow la ñu yaakaar waaye boo ñëwee boo ñëwul muy ji leetar baa ngi waaye soo dikkul daanu la yoo lëg yow mal nu yey la su boobaa ñëpp bokk teew daanu ni yàllaa diggante wa seydu moonu seetaanoon wa daa bay nanaa bidol mi wal joori ñu ak juba deekuk tooj moom lañ yaakaaroon ngir mu jiite jaam ñi bañ na nit jinne malaaka bokk samaam taxaw mboolem jaam ñi kenn du te keroog maa laa jawaabu kay ndallahi idin looy tontu yàlla sa boroom ma ndaw leetar ba keroog moo ko yónni Makkatal Mukarrama suma laada fal wilay no waa taawal baraawa doomi jol Makka ja jàngale tar ba keroog rangooñam ya dal na dënam ngir xalaatal xeddu yónnen baag yërëm leen keroog mu jàngee leetar bala dal di àndandoo la dikk gi seydina muslimun xaylu bu naa bi taali bëkk ni la doomi baay tax la ci moom hmm. wan ko leetar ba mu jàng naan ko luy sa xalaat ci waxe gaaye iraq ak kaw fa seydina muslim naan ko joxe ndigal ma jëf loola war yaay sunu yaakaar tey tarsala ma barawata arab ba ñooña ma nga naan waa kaw fa nuumaan mi nekk biir kaw ba na fa jiite deg naa ko fa lu waaj laaj ci diine laaj leen ko Seydina Muslimun Xayl bu Abi Taalib na doon imaam ba may ñëw insha allahu maa ngi topp ci ñoom arul xijaas ñëpp dégg ko waa Makka déggandoo mbir matis leen ñu ngi ko naan ba nu umayata bettoon sa baay Aliyun karamala wa jobom kanjuluk ajma cakawba cal ilahi xiyo la yu taaxu wal ko fi la fi la yaram ya wax ci ñoom kon bul dem wa ay da xaqiqa mara da da axbaara tar ñoo ko jox to ke ti jabaram ja mu naan leen xam naa loola lépp waaye dañu maa woo ci ak yàlla ak yent yàlla Muhammad kon mënuma bañ a dem waaye demuma ngir xeexi keroog la Sakina jigéenam ba ñëw jàkkaarloo moom te naan ko weeru Muharram a ngi ñëw teenoo bañ a dem ndax noonu nañ ci la ñuy tur sa deret ci amoon na mandarga mu Jibril yettoon sama yent yàlla Muhammad mu bàyyi ko Faatimatu tew la ko ku yët ma ma seet suuf weex la waat mu ni ci la ñu bind wee sunu mbir bu xonge ñu xam ne ab demam jegeñ na keroog la sàcc na génne suuf samu mel na deret sidna wee sunu naan ko adaan yakku na am muy mu dul man mën naa am muy mu xaram weneen wu dul sadiqa li qawli jedi ngir dëggal kàddug maamam nabi man ko nan waaye bu mu tee wutal yóbbal nu dem moo bu dee man ak fama la bi yedi fil maqdur nan laa mën a tegoo dogal ba soob yàlla borom ba moom jaam ñi teew na faa ilu lema yuridu jigéenam balaa li jooy tanaan alaay na cawki fil fuwaadi tahakkama والدم جرى يحكي من الوجه اندما ولما تهيا للمسير ركاب وقلت بعيني عبد لدما بالدماء عبد الله بن سبير لا دال دورنان كو نيوال جيما يبل وسين ndax mu bayyi yoon wi dalu lonu xel non ñi di mbokam abdoulaye bun subayru ña wax ko ak waa màkk gépp bokk dajelo mu ne xanaa déggu leen li ñu ma wooye ne ñu su ma ñëwul daañu la yoo ëllëg ak man yow mal xiyaamati ndara bana loola laay bañ waaye dem ma ngir xeexi damay dem yeesal seen diine je delsi sayyidina abdullahi bun subayron konan aya gaiban annan malakta fadana wasqaytana kadal wiraqi yaqina wa makka gépp bokk dajalo ya doomi jël makka takan nanoog waa këram ña minum abbas nu abdullahi minum jaafarun wa umar minum usman ak ababakar minum muslim muslim bun xalib bun abi kañu teelare baayam ba kaw fa tattara gaaya bokk la xadano jigéen ñi dem karbala minun ruqiyat wa umu وسينب واتكة وفاطمة الزهراء mooy doom ji jigéen ji ndaw ji mu duppi Fatima de bint Muhammad ndeyam ju ja keroog Makka la bokk toog di jooy ngir dem doomi Rasuul ja ma nga may mu naan la noog waa këram seen limba sabon wa sabona juróom ñaar fukki bakkan lañu ak juróom ñaar yoon bi yoon leen de jiite yoon wa keroog leeram ga mel na weer àndandoom yaa nga mel na yi biddiw nan ko naan si na wasinu bul dem Muhammad bun Hanafiya nan ko muñal ma gina wéruma suma tane àndandoog yow mu naan ko bayil du dem yàlla doy naag yonnen ndax ma men Musa fenen yasiru wa yadri ma bi daara saani'u amul jaam bu yàlla sàkk ngay dem xablan lay jëfandikoo ci yow لأن المالك مومم جامي وهو الفاعل لما يريد lu ko neex loolaay am keroog la tàggute waa Medina ko tamattu mi naan waari nabil Mustafa ñu yóbbulu ci seen leeri maam ya ba ñu génne keroog dajanaan mbooloo jinne yaa ko naan naan dandoo mu naan déet yàlla doy na ma gënee nag ñi ma àndal malaaka dajeeg moom naan konoo daan dimbali say ma sama yonent yàlla Muhammad ci mbir yu bari yàlla nu yebal nu ñëw loo digle loola la nuy jëf bu ñu naree war lay xeexal mu naan leen yàlla doy na maag lu mu jëf ak dara ji yonent yàlla Muhammad doo gaa yi ma àndandul bi ànd doy na juróom-ñaar fukki bakkan yaa juróom-ñaar karama xanaa jàngu leen la yàlla waxoon ci alquran yudrikukumul mawda walaw kuntum fi burujin mushayyada bu yàlla ne danaa génn àddina àndandoo du tee am bu yàlla ne danaa mucc ñépp noon ma du tax ma jóg fi kon bàyyi leen ma jàlla yonent yàlla Muhammadu jinne daldi jooy malaaka ya bokk jooy اثنان كويا أبا عبد الله والله لولا أن لا تجد مخالفتك budul kon tegu teg tey ndigal dafa araam te du dagan kon daanu àndandoog yow loo ko bañ bañ mu naan leen na leen yàlla fay bàyyi leen maag moom keroog ba ñu génnee la ñu dajeeg ndaw lu bàyyi ko kaw fa gaaya fexeel muslim baray ko daldi bind leetar merci naa wërsëg naan ko leetar bi muslim a ko bind ne réew bi mokk na yow la ñuy nekk ndaw laa dajeeg moom mu jàng leetar ba jàngal ko àndandoom yéen ñëpp bokk bég yaakaar ni loola am ndaw la dal di dellu suy naa wërsëy nu keroog la dal di wàcc fanaan wama suma ajabala wa barawataw moom mu dal di doon leen leetar ba jox àndandoom bu ñu naan Xays ibnu Mashar keroog xasin ibnu namir ak xarem ko dog ña ko tëroo fu ñuy wax alxaadisiya te junniy góor laa ndandool ñoo ko dog naan ko looyor wuy wuleen gaa ña seet ko jàkkaarloog le tar ba ko jàng boole koog ay ndaw keroog ñoo ko jiital bayit ko bay daalaay bun siyaat mu naan ko ana fan nga jëm mu ne ko xanaa cemut ni munu xaylu Useynu ma yónni mu ko walimal xayra boo gisul mu ne ku wuti mokk may muslim mu ni mu ne ko tey nga wax ma looy dox ca moom ak loo bàyyi sa gannaaw mbaa dinaa la rey dog la ñeenti mor te da nga yëg ci kaw baru jàkka yi xat ale sàmbaak Faadima toog seenu njaboot mbaa ma rey la kooka naan kololo du am keroog la ñu daldi rey xay si def ko ñeenti morto sende bi ne ñaan da bay la ko naa ñaqmata laa yawmal xiyaama sey naa we suñu yëgul loola daana def dëkk bu mu romb gaaña takkaandaloog moom di ko gunge keroog mu dajeeg faras daq waykatu kër yonent yàlla mu mat ba bàyyi ko ba kaw ba man ko naan loo bàyyi kaw ba kooka noppi mu dellu laaj ko mu naan ko bàyyi naa nguur gaag doole jaag gànnaay gaa ngaak say noonu waaye kaw fa day mboolem xole yow la ñuy waaye doole jàngaak say noon banu umay mu laaj ko naan koare muslim ma yebaloon mu noppi saat naan korey nañu ko keroog la daldi waññi gaaya ko toppoon naan leen ku bàyyi ku doon makkaandak man na dellu gaaña pedli keroog seen takaayaak seen yobbal yee ñoom ñëpp àndandoo mutawahidina lillahi wa mutawakkilina alayhi wiidu ci yàlla seen borom yendoo tuñu fanaanuñu jaabal seen daa boye wuti yoonu kaw fa gaa gaañu yëg ko keroog ndawal kaw ba la delloo la ñu daal di waaj ñeent fukki junni bàyyi ko fa kaw fa moom la ubay dal laay yebal ñelee nga dox di gamang ndox maa ñu naan bu ñaag see bu ñu naan ñeeñu naan leen dox leen seen digga gàdduy jaas lu yàgg-yàgg bu ken dellu ci ñoom ñeeñu naan leen ku rey wa saynu mul kuraa yaadar si ni na daañu la fal fukki at suma kaama keroog la Omar ibnu Saad daldi jóg taxaw te naan maa koy mboolem gaay ak nekkoon ka fa te doon ci muhajiriina ak lansaar ña naan ku àddina jarul lii subaa xasaadoo gaay a jublu Karbala say di wa say noog àndandoo bi ak wasalama te nag si baaka metti keroog la karbala keroog ñi dox ba mboyo ma metti na lool diggu njaloor jet na sëy naa wa sëy xool àll na lool la war àll bale doon ay gawar ñu yeew sa naari góor ya keroog mu xool wet na yoon wu mën a àgg kaw waa gisul looba mu daal di taxaw keroog ña mu mu naan leen mi réew moo di man gaaña naan kusir ya aba abdallahi wala tasal waral jal dem yaag si àndandoo te bul ko laajte fii réew mu bon la sanaa ay daa mu dellu laaj gaaña naan gopi mooy caddul siraat mu dellu laa jaat ci àq yàlla ak yoneen naan leen wax leen ma ko gaañe naan ko file di Karbala mu gees saan doome naan leen kon day wàcc leen faaxu naa wallahi manaa ko di kaabina fii waat naa ne ni wàcce mboolem daa boy waaw naa wallahi giñ naa fi moo di aar du karbin waa bala su fa njàqa rek na tub yàlla waaw naa wallahi gij naa ni fii dawaat faala naa fi le di siren ndem woo wallahi yoxtal rijaala fi le di sire yem mboolem góor wallahi makaabiru naa gij naa fi lay bàmmeeli waaw wallahi yox dabu demi bi le xilli yeti bi demi fi le ñi fuddane mboolem li yetti bi demi ci sama deret maak samay àndandoo fi la desi mare te doo naan yoo mbooloo mi ak Sénégal kon gaañi wàcc leen fi la alayhi wa sallama ña benn bi doon dakaro alay jooy ci ñoom keroog la sëy na wa nu yor jaa seen yey nam te naan gaañalal iraqe ma lakum وما لكم في جمعكم فضيل ولا من بذلكم جليل وكل حينا لا سبيل قد قرب النقلة ورحيلا وكل شيء عنده دليل keroog jigéen ña bokk jooyo wasay naan leen te ngeen muñ jooya nga ca kanam nan leen ahlul samawaat dañuy jeex alul araadina waa suuf yi dañuy jeex gaaña yiitoon ak sunu maam ñépp dem na kaala ña ko naan daa sabra la naa laa fat di kayaaman mënatunoo muñ ku la ñàkk jooylaan sa xalifatul maadina ñu baax ña dem yaa leen wutuñu fi des antay maa ya tuum yaa leen yaa di yaakaari jaam yi keroog la daal di àndandoo góoram ñu ñu bokk samb seen xayma ba fat gone yaag jigéen ñaak seen bagage ya bokk toog féete yàlla e seen borom war yemine wa shimaala di joor ak càmmoñ taxul ñu tiit mbaa ñu e weddi yàlla mbaa ñu saalit وكانوا صابرين متوكلين على الله ربهم عليهم رضوان مالك العلام seen noon yaa nga naan bu nu xeex ak ñoom ci le nan leen bàyyi toog leen bu kenn dem ci ñoom ba ñu ñetti ban yóbbal bu ñu yoroon jeex ba ñoom ñëpp ñu bokk xiif ndox mu ñu yoroon jeex ñu bokk mar bu nu leen songee gaaw leen rey mbaalu ko moy amee noona ñoo di sëtti rasulallaay ñoo doon njàmbaar te moom àlli yooyu baayam fatimatu ko juri ñi yabuñu doomi rasulallaay jee sallallahu alayhi wa sallam taxul ñu weddi yàlla seen ñetteelu fan ba keroog la ñu séddale seen xare ba fab nañu junni jox keroog ku ñaan atin ibnu namir fab nañu ay junni keroog jox ko ku ñu naan umar waayo nafsaat boole nañu koog ay junni fam nañu ay junni keroog boole ak camr yum ni zil jawsan ke mujje doomi rasulallah ja takkusaani karbala ja booleeg ay junni muhammad ibn lash azru kandiyoog subayru ibn larwa gaaña bokk séddaloo ñu naan leen yebal na ñaar fukki junneeg ñaar ña nga nandoog alxajar ak alxaru baayam gaaña tub ci wasanu keroog ba karbala ja metti te seen xol yërëm ko gaaña waññi ku war si naana ndooya gannaaw jaayan teg doomi rasulallahi jengir xam ne adduna day jeex alayhim oh. ridwanul malikul alam suma jaa aw mënoo say nu ñëw ci ñoom keroog ñetteelu fan ba la takkul naaru góoram ba ñëw naan gaañi man ana maa di kan xaaloo antalu saynu mu ni wow mi kuy sama ndey ñu ni ko fatimata bintu muhammad maan waa bi san baay ñu ni ko al murtada mu ni way jiddi man yakunu kuy samaam ñaan ko yon tella moom ma doy samaam mu ni daa kunun taalamuna dalika fa bima za tastahiluna safku demi وتمنعون شرب الماء انا ومن معي وقد سمعتم عن جدي محمد صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه ونحن wala yitra tawa kon bu ngeen gëmee yàlla gëm yonent yàlla Muhammadu na ngeen di mën a jàkkaarloog nun daganal tóor sunuy deret dox sunu digganteeg ndox mi njaboot gi kenn naanul te déggoon ngeen yonent yàlla Muhammadu non naas nag wa sëy suy daay ci baabi alil janna ten nax nu wala yitra hota araali bayti sallallahu alayhi wa sallam jàmbaar doomi jàmbaar ñëpp a nga def fa karbala gaaña naan ko kat alim na dalika kullo xam nañu lépp waaye wanaanu xayru taariki gan taw man maa ka daa dajoo xol maw da xisatan baa da xisatin duna tàggoog yéen bete ngeen génne àddina yóbbaale Umar ñu xarat ni mboolem ruy rey leen keroog la Seydina wa Seynu di xëcc laa bam jëmoon leen ginnaaw rambal wut si xaymaam bay waaj loo naan leen kon nag a'udhu billahi rabbi wa rabbikum laa yominu bi yow mi ne saab borom amaama baag borom naaru góor waag metel gu ga donoy Fatima toog Ali nag maamam yonent Yàlla Mamadu radiyallahu anhu wala saabi ajmaina gaaña daal di bokk waajandoo yor yor du jot leetar ñëw bàyyi ko ja seen buur ba yësit naan leen ku fexe baril dog boppam yët ma ma yónnee yi si dara la fal fukki at omar ibnu saada daal di jóg taxaw naan anaa la keroog ba yor yor bay jot gaañ bokk àndandoo sëy naa ba sëni joxul ndigam àndan dégul ndigal àndandoo ña gaañ ñëpp toog di déglu baatam moom doo nga xëy ak ñoom keroog gaañ bokk wër ko ndijoor ak keroog la laan gaañu dama bàyyi julleem koor am dama bayis na si yeneen benn damaa fecci wala rek ñu ne ko diidit bañ ganu bañoon sa baay alliyoo des ci nun moom lanu lay bañee mm. suma karoale yi min kuli jaani bin gaañe bokk wër ko su bala keew moom dong ak ñoom keroog mu xëy ñoom yor yor ba metti na su bala ko ala وسلم ثم دخل إليهم كرم مدوغ جدن بيرك نارو غورم و ثم جاوار الناس بي كن نيو چاندان ومي نان كو ماي من ديگل ما نيو خيخ لا جوتنا سينان كواركب بارك الله فيك يلا يلا باركل تيو كروغ رينا تيمير ak ñaar fukk gaña sokoray seyna wa seyni fab néew ba ngir yóbbu ci biir xaymaam ba teg fa keroog moo doon ay defi nam ca xeex ba ku dee keroog jël na la ñaanal fat si biir njaboot ga del si gaañe bañ mu daaneel ci ñoom juróomi téeméer gaañe bokk ñoom ñëpp dellu gannaaw suma jaabadala alxajar keroog lay xeex sëynu yaramam daal di daw keroog xolam baliw na mu daal di ñëw naan ko ana tabiun la kaya ibnu bintu nabil mustafa topp si naa say naawa see naan ko jógal dajeng ñoom keroog moom rey na téeméer rek ñaar fukk gaaña sokkooray say naawa say nuy fab néew ba gaaña bañ keroog rey na ci ñoom juróom-ñetti téeméer gaaña daw baye néew ba mu fab keroog jébbal keroog jigéenam ñaang njaboot ga ca biir xayma ba